asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu nuyoo ba gën a tedd jële ko ci a cheikh Mouhamadul Mountakha di ko jottali cheikh Mouhamadou Moustapha mi Serigne Baara tey di ko jotal njabootu Cheikh Mahamadou Lamine Baari yépp di yëkkati nuyoo itam di ko jotal njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp su ma tuddee Serigne Abdoul Karim Cheikh Abdoul Ahad mel na ne tudd naa ñëpp kon kàddu gu gàtt lay doon ndax kàddug nuyoo la kàddug cant la <clears throat> waaye kàddug soññee la mel na ne sax Cheikh Mouhamadul Mountakha ñii fi nekk di ay njabootam fu ñu nekk jataay bu ñu nekk war nañ ko fa mën a teewal war nañ ko fa mën a wax ci turam rawatina sëñ Cheikh Thioro mii kàddu yi mu jël daanaka mënoon naa yóbbaale kàddu sëriñ bi ndax sëriñ bi ñoom ñëpp la jaboote ñoom ñëpp la doyloo ci ñu man ko wóotu fu nekk xëy na lu baax da doy rek moo tax mu yebal nu waaye ñi fi teew ñëpp kum ci woowoon ne la yaama teewal mu mate ko sëkk ndax noonu la leen jàppe muy ñoom ñëpp di ay jabootam sëriñ bi mi ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamante ne bis yu mel nii moo ko waroon a taxawee moo ko waroon a taxawee moo fi waroon a taxawal boppam itam ndax bis buñ jagleel kenn ci njabootu Serigne Touba te tey yàlla nattoo ko muy Serigne Touba ci jamono lépp lu ñuy defal Serigne Touba ak lépp lu ñuy defal njabootu Serigne Touba moo ko war a taxawee moo ko war a jiite waaye nag mi ngi sant yàlla ci bi ko yàlla maye njaboot goo xam ne loolu saa su nekk ñu mën ko fay wóotu di ko taxawalal lu mel nii doomam Serigne Abdoul Aziz lii mu taxawal moom la ko taxawalal ndax moo ko waroon ndax bis bu ñuy wane Cheikh Mouhamadou Lamine di wane jëfam di wane ay jikkoom di fa jàngal alxuraan di fa leele te lépp di aw yiw Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko waroon a defal boppam ndax yoon wi lépp luñ ci yëngal moom lañ ko yëngalal ndax moo responsabilité bi kon mi ngi sant yàlla bu baax bi ko doomam Serigne Abdoul Aziz wuutoo ci lii mu taxawalal Cheikh Mouhamadou Lamine bis yu mel nii nag leg leg sax am ñuy wax naan magal yi dañoo bari wala bis yi dañoo bari ci diine waaye nañu seet bis yi nga xam ne bisi pola wala bis yi nga xam ne bisi caaxaan la wala bis yi nga xam ne bisi def lu naqari yàlla la loolu suñ ko méngalee rek danañ xam ne lépp luñ def ci bis yu mel nii di defal sunu borom subhanahu wa taala doyul bis la yoo xam ñaare li tax ñu koy taxawal mooy xamle lu baax wane aw yoon joxoñ référence boo xam ne des na ko mën a roy ndax jamono dafa laaj nit ñi ñu leen di joxañ ñoo xam ne suñu leen royee rek danañu rëcc te ku ne xam na ne Cheikh Mahamadul Amin Baara kenn jiituwu ko ci ñooñu koo xam ne suñ nettalee dundam nettali jaar-jaaram ak àdduna ci zahir yàggu fi lool waaye teewut luñ nett li ci dundam rek ñëpp mën koo def royuwaay delluwaay ba mën a jaruñu mën a rëcc ci nax-naxi jamono kon nag bis yu mel nii luñ ci def rek doyul te mag ñi rawatina ci yoonu murit yu ma gën a xam bari na fu ñuy sanc bari na fu ñu gor bari na fu ñu wuti kër loolu nag war nañuy leeral ne du bëgg kër yu bari moo tax mag ñi daan ko def ndax kër goo ca dem muy fii ci ndakaaru li fi nekk ci kër yi kilifay diine bari na lool muy Thiès muy Tiwaawan muy Njaareem muy Kawlax muy dëkk boo lim ci senegal kilifa diine yi sanc nañ fa am nañ fa ay kër loolu nag du bëgg kër yu bari ñaare kër ya ñoo cay néew luñ cay ñoo cay gën a néew luñ cay jariñu seeni njaboot sax ñooy gën a néew lu ñuy jariñoo ci kër yooyu kër yooyu lu ci bari ay daara lay doon ñu fay tàggat ndaw ñi di leen fa jàngal daayira yi daayira yi di fa daje di fa nafar seen alxuraan di jàng xasaayit yi di jàng seen diine kon kër yooyu yëpp li muy bari bari dafa am fonction bu muy liggéey ci tasaare mbaax leeral diine ni nga xamante ne saxaaba saxaabatu rasul ñu ci bari am nay jamono dañoo génn Makka ak Medine dem ci yeneen dëkk yoo xam ne seenu teewaay tax na fa lislaam gën a tasaaroo ci àdduna te Cheikhul Khadim dafa waxoon taalibe yi mag ñi ne leen saxaaba yi ñooy seen baay ci diine ñoom ngeen war a roy loolu moo tax njabootu Serigne Touba gi di wër di gor ay àll di sanc ay dëkk waye di sakku ay keur ci dekk taax yi ak yeneen dekk ngir rek lawal fa wote Serigne Touba bi ngir yaatal fa wote Serigne Touba bi loo li nak mom la Serigne Khadim Awa def fi ba njabotam Serigne Abdou Aziz diko ko dundal bañu aksi ci nangami at yo xamne mi ngi fi def bis bu mel ngir dundal ndono lolo kon ndono loolu lu sore sore la mën nga ko yóbbu ba ci saaba yi mën nga ko yóbbu ba ci njàngaleem Serigne Touba kon nag loolu noonu lañu ñu war déggee bis yu mel nii ñuy def noonu lañu ko war a jàppee xam ne bis la ngir yaatal diine waaye bis la ngir leeral woote Serigne bi waaye bis la ngir tànnal référence ndaw ñi surtout ngir ñu xam ne am na ñu mën a teg bët ñoo xam ne suñ leen royee naam duñ leen dab waaye ni ko Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu anhu daan waxee. roy waaju baax du ne da koy dab waaye danga nga raw sag maas ci roy waaju baax kon nag bis bi nii la ko jullit ñi war a jàpp nii la ko war jullit ñi war dégg te njariñ li itam nag feeñ na ci jataay bi ndax bokk na ci fonction bis yu mel nii benn li jullit ñi ndax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Tall mi fi jël kàddu wax li mu séq ak sëriñ bi wax li mu séq ak sëñ seex Coro mi

li am ci yeneen réewi Afrique yi nit ñi di boddikonte ci xeet di xeebante ci xeet ak waasoog yu demee bisi màggal yi ak bisi diine yi loolu moko ko effacé ci Sénégal ba ndax bis boo ci dem xeeti Sénégal yëpp da nga leen fi fekk muy séeréer muy wolof muy joora muy pular daje gi ñuy daje ci bis yu mel nii tax na itam loolu effacé différence bi waroon am seeni diggante kon fonction yu mel noonu itam bisi diine yi dana ko dana ko indil réew mi su yóbboo ñu xam ne jàmm ji ñu am du hasard rek moo ñu ko may lii mag ñi jëmbat ci réew mi fexe ba nit ñi jaxasoo nit ñi bañ a umbulante am lu leen boole lu ëpp doole fuuf li leen tàqale ci waasoo ki xeet ak yu demee noonu loolu fonction bu mel noonu li ko may Sénégal jàmm ji li ko may Sénégal mooy lu mel noonu kon nag loolu war nañ ko sant yàlla bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha nag mi ngi soññee ci góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax Serigne Touba nee woon na dem àjjana ju àndut ak yàlla xamu ko ñu góorgóorlu ci liggéey teraangay àdduna ju àndut ak liggéey xamu ko kon nañu góor góorlu ci jaamu yàlla waaye nañu góorgóorlu ci liggéey ndax kat sunu réew mii liggéey rekk moo ko mën a jële ci ndóol moo ko mën a jële ci jafe-jafe yi mu nekk yóbbu ko ci xewal ak tawfeex kon kenn ku nekk ci ñun sëriñ bi mu ngi lay soññ ci jaamu yàlla ndax yàlla loolu moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi waaye itam liggéey ndax ci lañ mën a développer suñu réew mi ci lañ mën a fexe ba xëyu ndaw ñi mën a yokku ci lañ mën a fexe ba ñiy dem ci gaal yi ñiy loru ci Nicaragua ak loolu lépp di jafe-jafe ci sunu réew mi loolu mën a wàññeeku ba ba muy jeex incha allah kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel sëriñ Abdou Aziz di ndokkeel bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp luñ fi jëf ak lu ñu fi ñaan ak luñ fi sabab lu ci lu aw yiw suñu borom defal nu ci lu kawe suñu jot ci barke Cheikh Ahmadul Khadim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم